salaamaaleykum salaamaaleykum mbokk internet ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax di leen ziar di leen joxaat seen bu wér a wér tey ñu ñëw leen fii Géejawaay fekk si fi xale fekk si ndaanaan muy kan muy Seye 2 a fi open press diggante ba kan diggante ak Issa Pouye mu nekk ñaari espoir nekk ñaari ndaanaan yoo xam ne lamb dina yaakaar te man de suñu dina caméraman yow Alaaji Maas dox la ñu xool li nekk si biir xale yi fi nekk ak espoir ñu dox dem nañ dem Alaaji Maas maa ngi taxaw sama papa naa la waa mais maa ngi lay fay doom day moo demee moom frère di wax noo def mbaa am nga jàmm di la dalal fii nga ñëw di rafetlu nag si liggéey vraiment li ngay liggéey mention spéciale parce que ñun moom loolu lañ fi nekkee ku liggéey rek liggéey nga mais mention spéciale yàlla yàlla xeeb dool yi merci jërëjëf père tey ñu ñëw fii open press Alioune muy bëri ngeen di bëri bés mag diggante mag Issa Pouye duggoon na waalo waaw mais yàlla dogal bi mu duggee gis nga ni fi xam nga kon bu yàlla dogalee nga guddee gisaa buy kon fañ jaar rek la ñuy jaarat te combat la ne combat bu ñuy jël au sérieux la parce boo xam ne lu ñu ko teg da koy tegoo xam exemple quoi te lamb ji nag xam ne ni koy gagné mooy xam nga li nga moom te incha allah bi dinañ jëli ñu moom ñun. ñoom ñaar ñu bokk benn adversaire bu leen leen si benn ngeem na si loolu est-ce que na ngeen koy waajaatee. non combat am lépp ñoo koy def incha rabi li fa am lépp ñoo koy def non yàlla nga ko fekkee jàmm ak salaam li fi am lépp ñoo ko def incha allah rabbi ñu ñooy ñu ñooy bëre ji seen si lañ ci xeex non lépp day a combat boobu lépp day am lépp day am incha allah rabbi combat la boo xam lépp day am loo ci xalaatul lépp day am incha allah rabbi nee na Alioune nekkoo kuy xeex yàlla nga ko fekkee jàmm ak salaam te tal ko dina xam lépp dëgg la incha allah rabbi merci père yàlla nga ko yàlla defal jàmm defal ñu jàmm ba le jour ci naar nuyu naa la. maa leen di fay bu baax baax. tey. waaw sant bay doori ko tey alhamdulilah. waaw tey non tey ma teewul sax ñu bëri dañuy jaaxle. waa sama lonko la de sama seex la. sama doomu ndey la. non dëgg neexul sama doomu nday la. di fàttali fan si club bu baax. xam nañ ko bi moom moom xam na bu baax a baax te waxtaan nañ te day am ndam incha allah. si mu gaaw wala mu yéex. bu gaawee baax na bu yéex e baax na déggoo ma de ci def lu nekk rek baax na. mais lu mu ci def lu ne. baax na. nan la Alioune Seye di demee. Alioune Seye mooy mooy mooy mooy xale bi. tey bu ñu wax dañ naan moom mooy xale bi. Isa Pouye du mag. mais Alioune moo ko jiitu maanaam Issa moo ko jiitu ci làmb ci wàllu làmb laa wax moom moo nekk xale bi. dinaa wax benn affaire de waa ji gis ni pare na de. waaye waa ji tamit pare waa moo gën a pare. rek. da gëj. waa ji gëj. kële moo ci gëj laa wax. ci gëju ci gëju ci gëju si. gëju si gëj a ko duggoon na Ikiri Waalo am lu mu fa jëlee. tey mu duggaat kii xaarul combat xaarul combat amul amul amul heure ci entraînement day entraîné rek combat ak ñàkk combat ak lépp ci bokk yam parfois dama naan ko yow da dof ndax xam naa li ko làmb jaral yàlla na ko làmb fay bu ko làmb mbër du gën domine nda xam naa ne ci làmb ji boo ci génn ñetti mbër yi si dàq bëre man gëm naa ne Alioune Seye numéro 2 ci lay bokk. non man yeneen gaa <laughs> merci naa ok nice ñoo far jaajëf jarama Mbaye Tine nuyu naa la fay naa la naka tey sant bu baax Alaaji Mbaye Tine la de waaw Alaaji Mbaye Tine la kay <laughs> Mbaye Tine tey ngeen am bis bu mag seen diggante Issa Pouye nan ngeen ko waajal nan ngeen ko pare yéen waa Géejawaay d'abord dañuy sant yàlla bu baax julli ci yonente bi sant suñu waajur sant suñu sëriñ Cheikh Modou Gueye di sant ñi fi teew yëpp ngir kan ngir Aline Seye di ñaan borom bi suturaal ñu cat bañ ñoo jiitu foofu yàlla defal ñu ndam ci kaw Issa Pouye daraja yonent bi. est-ce que xam ngeen Issa Pouye en 100 pour xam nañ ko bu baax ku bëreeg Balla Gaye rek champion nga Issa kenn du ko euh, naatable ci làmb mais rawatina Alioune Seye dafa def lu nekk fii géejuwaay kon am nañ sañ-sañ topp ko te kàttanu yàlla ne ko am ndam sooba yàlla. combat bi seen ko si mu gaaw wala mu yë. ñun daal Alioune Seye daan rek loolu lañ loolu moo ñor ah. waaw. mooy man maa ngi pare la 4 juillet maa jara 2 waaw. loolu ñu ci waxtaan. waaw bu soobee yàlla. merci incha allah. maam laat nuyu naa la. fay naa la. naka tey. sant comme d'habitude. c'est la première fois ma gis maam laat. nga gis ma ci open presse. c'est normal non seulement dama ñëw comme représentant Gaston production pour ñëw ñii dañu équipe lañu ñii dem fële ci Sa ñuy ñëw fii pour ñu si parce que lii am na solo en tant que organisateur bi nga ñëw fekk fi lu mel nii dal na xel ñu ngi félicité Alioune Seye bu baax vraiment liñ fi fekk rafet na di ñaan daal vraiment le jour si mu doon euh, lamb ju doy waar. lamb ju doy waar nekk mu nekk benn journée ñaari grand combat. waaw mais ñett Weuz Diambar mat na grand combat. waaw Sa Thiès Sa Thiès Moussa Ndoye nañ stade bu ne Alioune Seye mi dernière sorteem gis nga arène nationale nam ko def donc boo leen boolee ci benn tàkkusaan xam nga Gaston production moom comme il a l'habitude de le faire yëngal stade bi ba mu yëngu andi ndaw rabine gumbe lépp da ngeen ko fa gis lépp luy culture kàttanu yàlla dana am ci stade bi samedi bu neexee yàlla. waa mais le 27 nga bëgg a wax wala le 26 mooy samedi. le 26 le 27 moom damay yaakaar ne may laaj ci le 27 Ibamaar dinaa si ñëw dinaa buñ paree. da ngaa boole ñaari espoir. waaw. ñeent muy sang. waaw ak Texas. ñaari doomu mbër nga boole leen booy melax ak Ndiaga Thiam. grand combat bi soog a bu doy waar ñetti combat yoo xam ne bu ci nekk damaa yërëm sax mbëri te dara xewagul waaye boole ñi war a ànd ñi war a bëre ñu moo neex xam nga tey ji sang ak daa amul favori Ndiaga Thiam booy melax amul favori waaye bébé Julde Youssou Ndour amul favori man nag loolu laa bëgg ci làmb làmb joo xam ne booy dem sóoraale nga ku ne daanu sóoraale nga ku daanu mais loolu mooy làmb. seetlu leen si combat préliminaire yi sax amul favori. xam nga man moom liggéey li ma am habitude def mooy dama koy def mënu ma ko ma toog bàyyi ko damay liggéey lu leer nga mën a ñëw taxaw seetaan yow mi seetaan boo ñëwee di nga kontaan yow mi toog sa kër tam bu dee da toog sa kër di nga kontaan parce que tam làmb boo ko sëbee di ko def war a def a def champion mais bu boo demee ba ci kaw souvent ah, seetlu mbër yi dañu am ay difficulté boo daanee ñi nga warul daan boo dajee ñi la war daan dañ lay daan mais bu bëree ñi nga war a bëreel mën nga def carrière bu gudd. maam laat maa ngi lay sant bu baax di la gërëm. déggu ma maa ngi sant bu baax di la gërëm. waaw mais yow it ci yow maa ngi lay sant yow it bu baax a baax a baax di kontaan ci yow di la félicité di félicité ñoo fekk yëpp vraiment nii géejawaay mel dal na xel rendez bi daal samedi événement bu rëy la waaye naa la jox benn information. Gris 2 Abdou Diouf. waaw si yàlla. Gris 2 jàppal ni dimanche la en direct lay di dégg. en direct wala ñu defee face à face. mbaytin ak Gris 2 dañ fa daje. Euh, Liss Ndiago Thiatou Rebeuss. amoon na demoon naa Bawol di open press. Ah ah, nga da ngay xale mais naa la jox benn information. incha allah ci kàttanu yàlla am nga fa euh, euh, toujours prêt war na fa bëre ak Mathia Prera benn saba doomu jàmm gën x9 war na fa bëre ak xale bi ñuy wax booy mbëroon ak yeneen ak yeneen yi fa nekk ren di seeg ba jaxal loolu lépp ci kàttanu yàlla la kat lay doon la kat daal a nationale dina yëngu dana jax dinaa si musul xam dem naa ñëw waaw naa demaat feneen kon jeex na asib sant yàlla da ngeen waaw ñëw euh, soutenir sama sama rak sama doomu ndey Alioune Seye 2 bi xam ne dañoo bokk moom dëkk mu wan ñu yar wan ñu aussi euh, euh, baax ak nekk jàmbaar si li muy def moo tax dañuy sawar di ñëw di ànd ak moom di ko gunge di ko jàppale aussi. waaw yàgg na du tey du tey lañ ko commencé yàgg nañ ko bu mu commencé def bëri euh, euh, lu rëy la si man si ñun parce que dafa am fu mu toll fii da ko war a dépassé dafa am lu luy xew si moom à chaque fois su waree dépassé benn niveau rek am gàllankoor ko téye te incha allah ren dañoo mobiliser wu ñun ñëpp ñu takk pour incha allah mu palier boobu mu mu mu mu dépassé ko te loolu lañu jaral. xoolal rek soo xoolee mbooloo mi rek nga xam ne eh, te mu nekk tey jour ouvrable nga xam ne mobilisation bi taxaw na xale yi jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi ñëpp nañ mobiliser incha allah pour feesal stade bi ndax combat bi dañ ko bëgg dañ ko bëgg ndam bi dañ ko soxla ndax gëj na fi waaw jërëjëf jërëjëf. taalibe Cheikh nuyu naa la. waaw fay naa la sama sama pël bu rafet bi si loo nekk. sant borom bi rek. mbaa yaa ngi si jàmm. maa ngi am jàmm baax a baax. sant yàlla bu baax waaw tey ñu ñëw fekk géej waay mel nii. waaw Alioune Seye rek waral. billaay wallaay taalaay xëy na lu mu nekk tey open presse saakee sax moo tax affaire yi xaw a mel nii. waaye tey su nekkoon open presse saakee barki Seydina Mohamed fii lay fees dell. parce que kii dañoo ji loo xam lu seen papa yi seen yaay di ji muy teraangal baax loolu lañ Alioune Seye di ji. te si kàttanu yàlla maa ngi koy ñaanal si barki Serigne Babacar yàlla may ko ndam lu sedd guy si kalam Issa Pouye. combat bii nii xam nga fu mu leen na fu muy yóbbu ndax suñu daara Issa Pouye dañuy dem te billaay walaay taa dañuy gars yi xaar rek te xam ne dañuy daan Issa Pouye si kàttanu yàlla te suñu ko daanee dinañ dem suñu yoon. fii fii la ñuy xamee Alioune Seye 2 fii fii. combat bi séntu nañ ci xeex wala bëre. Issa Pouye foog ko pare soog a daan Alioune Seye lamb ji day wane boppam. lamb ji day wane boppam. kon ni mu daan def wane wuloon yëpp ñëw xeex làmb ji daan làmb ji avant ñoo génn stade bi Gaston dañuy joxaat beneen avance ndax dinañ fi indi loo lu kenn lu indi kon ba boobu ba boobu incha allah bi mu lutteur la de guerre nuyu naa la maa ngi lay fay di nuyu sama gars yi sama caméraman yi baax yi tey moom mu ngi nii sant yàlla ñëw ci open press Alioune sama doom nday sama maître waaw ñëw ci daal ñu gis tey géejawaay yëpp génn soutenir ko dooleel ko. waaw Alioune Seye mooy Lac de Guiers 2 Alioune mooy géejawaay tey bu ñu nee monument géejawaay Alioune Seye la parce que moom mooy mbër bi nga xamante ne tey day fekk dara xotteeku mu jël bésam ñaw te kenn du yëg kon donc jëmm jooju noonu tey bu amee bésam mbër yëpp ci taxaw man wax ma sama bopp man génn naa sama bopp parce que moom mooy Lac de Guiers man maay Alioune Seye 2. en tant que yow leader nga bëre exemple combat boobu nan la nan ko waajee. waaw waaj nañ ko waaj nañ ko baax sax te xam naa Issa ma li nga wax dëgg man xam naa Issa Pouye bu baax a baax. di ñaan yàlla moom waaw moom xamu ko. waaye man su ma ko waxee dinaa ko wax fu jaar. dafa mel ni kele da nga ko aayoon na waaw loolu la ñuy ñaan yàlla ah yàlla ñuy ñaan nag waaw ak lu ma ko wax wax yàlla ñuy ñaan su ma ko waxee kele ba yàlla nangul amul sens. dañ koy ñaanal yàlla yàlla may ko ndam lu rëy waaw. maa ngi ak saraxam maa ngi ak saraxam. Ah. ah waaw nu ñu def. nu ñu def koo laa nga xam lu bare. sa la woon de. waaw te ñaan yàlla bii tam am mu doon vite fait bien fait waaw. mu ne. Franc li la soxla. kan Franc. waaw ah. ah, Franc borom baax la. Franc jantal mel na quoi maa ngi koy ziar baax a baax. li wax nag am na ci droit wax ko parce que mbër boo tollee benn dimani benn dynamique bi da ngay ñaan yàlla bëreeg say mag mais na gën a joobaat bañ bañ ñu bëreeg moom. ma ne ma dafa bëreeg booy dina dinaa bëreeg moom ëllëg mais bu mu yàq xam te daal bu mu yàq na liggéeyaat. lu muy xaar seen ñetti avancé ak ñaari avancé. ñetti avancé ñaari avancé ah xanaa bëgg benn avance bu baax rek benn avance bu dëgër këj. Oh, doo xool ñaar wa ñett. non man at man bàyyi ma jël benn bu dëgër këj. boo xamante ne gars day tax nit ñi seen nopp yi. di kan kan. ma ko wax ma koy wax wax la ma kenn waa kooku ragal la. waaw am na boobu la dégg mu nga wax si. sa diggante Yékini Junior. sama diggante Yékini Junior Yékini Junior dèjà maa ngi koy nuyu en passage jantal meen la ah, borom baax la mais loolu dara gars yi ku joob rek ku ma fekk foofu rek ma ñëw bëri ak yow loolu doon benn problème. waaw si buntu bi nga taxaw. mais laa gën a soxla fu mu ne guddi yi roi des rek moom traité nelaw. ah ki ko yor laa leen woon ngeen de. waaw laa leen ne ah. waaw ñun ñaañu kenn ku ne na moromam mi saf sama kàddu gu mujj xanaa di wax waa Géejawaay xam nga la wax bésu làmb ñëw su tënni Alioune Seye 2 di wax sama papa yi sama yaay yi ah, sama mag yi sama sama ndijaay yi ñëpp xale yeeg ñëpp ñëpp a ñaanal Alioune Seye 2 parce que dafa nekk nit koo xamante ne xoolam dafa rafet man bu may taxaw di wax dañuy yaakaar ne ma ànd moom moom moo tax fekk heure que demeewu fa noonu lan ma wan la ba tax ma jàpp ko maa ngi nii waalo laa jóge dëj laa jóge nii damaa daw ñëw dama doon daw loo xamante ne xaw ma sa nu mu demee noonu ndax rek cofeet maam ci moom maa ngi koy ñaanal yàlla ko yàlla may ndam ci barke Seydina Mohamed ci samay barke waajur ci barke waajuram moom ci barke sëriñam yi ci barke kilifa diina yëpp ci barke sëriñ Babacar Si yàlla na ko yàlla may ndam bésu samedi gi na ko yàlla may ndam lu rëy ci barke Seydina Mohamed borom xol bu rafet la merci beaucoup Bébé Elton nuyu naa la. waaw maa lay fay sama ñaari waajur di sant sama sëriñ Sëriñ Ousseynou Mbacke mu sëriñ Ateex di ñaanal Alioune Seye 2 bii mu jëm le 26 yàlla may ko ndam ci kàttan barke sëñ Touba incha allah am naa jeexe dina ko duma dina ko daal man maa la wax Issa xam nañ ko bu baax li nekk ci euh, Alioune Seye 2 nekkul ci Issa Pouye foo wekk loolu barke Seydina Mohamed moo ko dàq bëre fuuf lamba waxul dëgg rek waaye kii war naa dépassé fii ah. champion la ndaanaan la maa ngi sant waa Guédiawaye ñëpp sant may sa sant bu di daf may jàppale waaw dañ may jàppale di ma dooleel di sant waa école de lutte Balla Gaye ñëpp sant Lamine Faye coach mbës gis naa taxawaay bi école de lutte Balla Gaye ñi ci am combat yàlla na leen yàlla may ndam ci kàttanu yàlla. merci beaucoup ok.